la chronique People.

boobu noonu ñoom duñu ko jël waaye ay fansam naka daal ci ànd lool ak ñoom donte sax jëndoon nañu seeni ticket ba pare moom naka bindoon na benn message ngir xamal leen ni show bii di loo ñeme ñàkk show à Paris dañu koy toxal naka fële ca café de la danse waaw ba ay fansam naka teewoon nañu mu fees lool la ba show bi daal mujjee woon naa antu donte ay problème mu technique daal nekkoon na ci te it naka public bi mujjee lenn lu dul daal di ko yuuxu naan ko yaay seen baay waaye Guigui Sarr moom nag di ab boo xamante ne nii donte nag amoon na benn interview ak taskatu xibaar yi lam fa xamle rek mooy mer na nag ba futu ci li nga xamante ne nii mooy violence yi ñuy am fii ci Sénégal ndax jàpp na ni daal du benn yoon dëgg ba tax naka mu li fa ay mbootam daal di wax ni moom ba muy am 16 ans nag mosoon naa nekk nag victime bu tentative de viol waaw ndax nee na daal benn waay bu mu doon fréquenté moom ak ay xaritam dañoo demoon seen kër moom it mu wéet fa lool ak moom ñu di koy jàpp rek di ko làmbatu ni bëggul wax benn yoon ci mbir moobu noonu ndax la tax nag mu wax ko mooy violence bi nga xam ne gis nañ ko ak góor ñi nga xamante ne ni daal lépp loo xam ne mooy cancer du col de l'utérus daal ma jàpp nañ ni góor ñi daal seen loxo génn ci benn yoon ndax seen ñàkk a set rek mën naa tax jigéen bi am feebar bu ni mel ba tey ci seen revue de presse people Edmo daal di génne single bu bees tàkk tuddee ko bés bi clip bi naka daal di génn waaye laataa moo génn nag moom mii wane woon na ay photo yoo xamante ne moom ak rakki di actrice ñoom ñaar defoon seen mariage nag ba posté seeni photo waaye daal la nekk ci ab clip lañ doon waaj ba tax naka question yi ñëpp doon ko posé mooy ndax ñoom ñaar ñii seen mariage dëgg la waaye clip baa ngi di génn na Edmo nag di xamle rek ni li sénégalais gis daal loolu la du leneen nag ñiy laaj ndax mariage bi dëgg laam du dëgg ab clip la te clip baa ngi noonu yéen a ko mooma tudd nag bés bi bës baa ngooka